<laughs> waa kay mbaay Tata Mbodia mbaay man sama jëkkër ji kat damaa jaaxal ndax moom day bëgg bu guddi jotee ba ngeen sëy ba pare yéen ñaar moom daal day bëgg nga jóg ci guddi gi sangu ci guddi gi laal garab bi ci guddi gi fóot ko daal di jël euh, beneen darab laal ko sangu ba set te daata moom ci guddi gi te du tee encore bu fajar gee bu la soxla waatee nga jox ko ko mais moom dara bu ci xasee ba ànd ak yow moom dootu ci dootu ci yaat ak yow ci dootu tëddaat ak yow ci darab bi da nga jug laali darab boobu jug sangu ci guddi gi eh sanguwuma <laughs> eh man Mbodia Mbaye man sanguwuma am na yoo xam daa métti nag de des fois soo sa yoo xam da nga naan ndax lii am na eh <laughs> gis nga koy dund da nga jigéen bi koy dund comme yow nga couple ak moom na ci jàmm man duguma xaaju guddi di fóoti darab juguma xaaju guddi di laal lay darab juguma xaaju guddi di sangu eh dama ne boo sëyee ba pare jëlee sa sarbet bu nooy népp coton bu nooy ni ko ca mbàpp fomp ba mu nga tekki sa euh, napp daa tëdd moom képp say tànk <laughs> moom sangu na jóg sangu ji moom buy sangu na jóg sangu ji su paree bu ma soxla waatee ñu nekkaat ci waaye man moom mënumaa jóg xaaju guddi gi dagg samay nelaw war a dem sangu ji laal garab ba fóot ko wala ma xooj ko wariwaat wariwaat wariwu darab di ko war a lalaat ci guddi gi <laughs> am na sa yu métti nag yu compliqué am na sa yoo xam ne dafa métti dafa compliqué boo paree ci guddi gi da jóg sangu ci guddi gi laal garab ci guddi gi te say boobu doo macc Dakar yow doo macc micro yaa ngi dégg doo nampi weeg rocc jam lay doon soo paree jug ci guddi eh naqar jam rek dafa doy ah <laughs> eh man la naqar rocc jam rek dafa doy sëkk ah man béggu ma da maa rocc dugalal ma ca rëgëj rëgëjee a après ma war a jug man jugaat ci guddi ji di laal darab di sangoo ko fóot ni ku ku yori ku yor ay ay doom yu bari yu rëbb ci guddi gi jaboot di pour tugu digg man ma jóg di foo daka sama ko raxas xam nga loolu ku ma koy def loo sama doom ji nga xam ni maa ngi ko boor guddi tarkal la mu tuur ma ay ay ay ay ay ginnaaw këram mënu maa tëdd ak kooku moom jeeg dëgg day jóg ci guddi gi laal ay darabam yëpp xooj yaa ngi dégg raxasaat sa doom ba mu set nga kuus ba mu dëgër nga laali sab darab daal di ñëwaat tëdd loolu moom mën naa ko waaye sobe bii nga ma jox ci guddi gi nii mu war a mën a jug xaaju guddi man di fóot ak raxas ni ko ku nekk ote <laughs> am na sëy yoo xam ne métti na nag de te ñu koy dund doo ci boole bànneex lépp dund la bégal de la mat ñu Dakar wayoo ci micro ba jurgootuñu la nàmp ñuy weer raayuñu dan lay rocc ni la ko ca pëtax ba pare ni la jugoon nag sangu ji dara bi fóot fóotiwu ma sanguwu ma bu toon nag jamono sedd na moo tax jéeg ma gis ñëpp ñu koy sëyee gis naa ci koo xam ne daa mel ni daa woo nelawul nelawul ki ma ci xam man mu ko doon sëy wallaahi daa mujj mel ni sarangal daa wow koŋ koŋ koŋ ni ni ni yàqu jën ndax lan mun da nelaw di ma man màccuma ci micro bi raay léegi man bu waree nelaw wax xaaju guddi war a gëmm samay bët jóg sànku samay nelaw naaw <laughs> ma jóg sànku man samay nelaw naaw foo jëm may laali garab di fóot ba fajar allah bar fajar ma soog ni ci kàcc jóg sangu sama farata ba set sangu sama njàmpe saa ba set mu muroo sama mal fa nag daal dem lan sama sijaadi gi nag daal di julli dañ leen waxante dëgg nag yàlla sunu borom bi wax dëgg yàlla nag teguñu dara lu métti nag des fois nag dañ la koy ajal ajal la niveau bi ba mu yéeg foo xam ne maari day taal boo moytu sax yow di nga da ngay teel a daal di naax bu tayee nga bërki démb la woon bu bërki démb nga tay la xamme woo dërëm xamme woo juróomi dërëm xamme woo fukki dërëm ndax ki nga sëyal moo la <laughs> man day xoolal duguma sanguma xaaju guddi gi footuma sama sariya bopp laa ci yor <laughs> parce que sobe lu mu takk-takk ci yow bu ko ndox laalee mu jeex sobe lu mu takk-takk ci yow bu ko ndox laalee mu jeex comme weeru koor lañ boo sëyee sa jëkkër tëddal ba ba set boo doon tëdd fi ndooli fii ba am nga koor mais lu problème bi <laughs> bu dee moo dëgg nañ ma ko bindal ci commentaire yi nee nañ weeru sax bu la soxlaa boo sëyee moom boo demee ba ci boo nelawee moom ba midi saa yoo yeewoo sango am nga koor bu dëgg bind ko ci commentaire lu ma wax xam bu sama njàng soriwutul lu ma xam naa ko may di déglu borom xam-xam yi comme nag weeru koor googu lañ la ko may. ni la yow saa yoo yeewoo sangu dagan na mën ngaa contrôler sa koor ma nag man mi jug seen kër di matee sangu farata ba set daal di jug nag jàpp julli nag jaamu yàlla ci fajar googu xanaa ab jeeg tëdd ba fajar ba jant di fan mu tëdd ci kaw la te jugul jaamu yàlla te dërëm jotu ko mën ngaa julli dara jotu la feebaroo woppoo heure boobu daal dinaa jug sangu jël sama sijaada gi sama kot gi julli jaamu yàlla ñaani yàlla samay soxla mu fajal ma ko lii laa xam waaye nag xaaju guddi nga yéema ci nelaw rëgit rëga jéem samay faar démonté nga ni ma jugal ci guddi gi rek dem sangu ci laali garab bi fóot ko lalaat beneen darab ñu war a tëddal <laughs> boobu coono boobu fitna am na sëy yoo xam ne gis nga boo koy sëy da ngay mujj sax defar da ngay mujj weng deme côté ndax say nelaw du doy dinga nga naax say bët ndox mi day saase nga tëx <laughs> fitna la di <laughs> fitna dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ngay dund man yooyu sëy fitna man dinaa ko sëy kenn sobe boo xamante ni sa jëkkër ko ko sobee diina kontaan ci yow yàlla gërëm la malaaka yi fanaane laa gërëm ba bët sa wicc malaaka bi yërmaane bi wàcc sa biir nag ndax yaa ngi jaxasoo sa borom kër bu la leew doom damay tëdd ba fajar ma jug sangu sama farata sangu ba set heures sama ci gi jug julli wédd ba samay wédd jeex ma da tëddiwaat darab ba su ma xëyee na daal di laal li xooj jël beneen darab laal waaye yéema xaa juguddi may nëmbax nëmbax ak samay nelaw war a fóoti darab wala sangu ci guddi samay nelaw naaw yow ma ko tàmm ba pare dikk dam damm saloo si nelaw man ma tëdd tëdd eh, tëdd di xoole ba fajar nga wëlbatee ko ma war a rocci waat jàmm eh, waa <laughs> ndànk dara mi tuut barki Rasulullah dara mi am na yoo xam ñu ngi ko jal ci suñu bopp yi du ko dund suñu stress di gën dafa xam ay jaamam bëgg ay jaamam fonk ay jaamam kon sëy bi am na loo xam bu ñu ko bëggee teg c'est compliqué man ñaar ñi ma gis ñëpp ñu du ko dund dañoo intéressé lan gisa kenn ku koy dund gisaat keneen ku koy dund man boo ca ñaar di ko dund dañoo mujj naax kenn ka moom dafaa sax toogul moom moom ba mu demee xam ne lii jëmut kër xaaru fa sax am doom fa la teg bagage yëpp dem seen yoon am na yoo xam ne dafa mitti stable doo rocc jam doo ma ci daq doo raay mbele doo jur góor léegi rocc jam ba pare boor jug di fottu guddi gi mel ni mel ni ku nekk euh, sandako suma defuma ko ñi ñu réewle sax guddi gi ñu am doom dañuy teg seeni bagage bu ñu koy fóot ko juguma guddi di sàngul kenn ka fóot am na yoo xam bu leen ko bëggee dundaloo c'est compliqué ànd leen a dal stable yàlla mii ñu sàkk moo ñu gën a xam boppam am na say fitna yoo xam du ma ko nangu kenn